welcome to another city affairs show tey nag ñu ngi fii si biir Banjul Primate ak Mos di find out lépp nga xamante ne mu ngi xew Banjul fan ñu passé nii bu ngeen fàttalikoo am na lu nga xamante xewoon na fi mu amoon ndox bu doon taw fii mu am benn waaye bu nga xamante ni gaañoon na fii si place bu nekkee nii waaye nag ñun fekkeewuñ ñu ngi ñëw fii di laaj ñu nga xamante ne ñoo ko doon dimbale ndax am na ñu nga ne ñu ngi fi woon ñoo ko doon jàppale tey ñoom leen fas ne waxtaan ñu wax leen ñu wax ñu lan moo fi jot a xam lan moo fi jot a am waaye tamit lan moo mujjee am si mbir mi dañ ñu ko waxal tey fii si primaire. keroog man maa la si mun a lu set lu si mun a nekk on a suma kanam la waaw suma kanam la on a saana maan bi fu ma taxaw suma bundi la laa taxaw yaa ma understand suma bundi kër laa taxaw. So mange yone sa pour café pour nani ti understand? Because of that day mung don def heavy rain. So mange taxaw suma bundi ker gena si, understand? Di set situation bi. So non la ñewé taxaw gis waji mu ya dawala bay bike be la hasini si her bu ndaw bu nekkon fi du ko mëna gis. So sila la balance, xeer bi la dëggaat balance nak daanu. So sila batam bi dal. Understand? So man suma bundi kër la taxawoon straight away si rosi ma maa suma boy. Understand? Ñoo konyu pixie. teg ko si slab bi after wash si lañ roosa moom file pour ut taxi pour yóbbu ko hospital after den si lañ am taxi yóbbu ko hospital honestana so after mun a gisee docteur docteur ko waaye ni ma ko gisee noonu ma xam ne kii du dunda honestana so si laa ne docteur bi anything bàyyi ma bàyyi fi suma nomba anything rek nga call ma in case ma xam si dara soo noonu laa toogee before ma agsi suma kër si la ma docteur call ma delluwaat immediately ñëw so si la mooy dama la bañoon a wax waaye waa ji dee na ma ne ko man understand oon naa sax man bi ko so du ma ko gisee bugguma waaye xamoon naa ne saa waaye dee na understand na so noonu laa toogee na ma ne ko léegi kol naa besoon na ubbi nañ daayireem bi baagam bi maa ngi ko amee ubbiwuma dara so dama ne ko dañoo dem ba station ma ubbi baagam bi li si mun nekk ñu yema seet naka la ñu bàyyi ko yëpp si loxo coy yi afterwards si laa ara ñoom hospital si laa ara ñoom station so si lañ jël suñu statement moo ubbi baagam bi génnee baxaam bi muy 4700 at 5000 CFA at yeneen coin CFA yu bëri on a saan nga yaa ngi ma wàcc fa at benn wan euro at téléphone téléphone charger téléphone battery everything at lu mu doon jaay yëpp dama ko hand over coy after was dem naa ba Date House fa mbokkaay mi laaj la ñu ne mooy yëpp a ngi nii yëpp a soo dara manqué wut si. Euh, pharmacie assistant la fii mooy suma pharmacie Mosque Road Primate si Johnson bi 29 bi waaw waa ji mu ñëw wax ne dafa daanu si biir pax nekkul ne dafa daanu si biir pax nit ñi lu ñoo wax loolu nekkul loo xam ne dafa am yi nga waa ji si kaw tali bi si kaw tali bi la daanu comme suma mbokkam nu mu ko doon waxee rek dawda nu mu ko doon waxee waaw foofu noonu la daanu si lañ ko ekati because si see seekul la doon dawal nu mu koof see loolu moo moo moo moo xaw a rong mu ngi bëri woon ndox léegi bu mu daanoo si lañ ko taay si kaw si kaw slab si fii nii si kaw footpath bi buñ ko taayee si fa kaw footpath bi ma ne léegi kii lii mu ngee taw léegi duñ ko mun a taaj fii nañ nañ dem si lañ dem si boori pharmacie waaye ma ne foofu tam mu ngi bëri ndox si lañ ko yóbbu si mbaar bi buñ ko yóbboo si mbaar bi maa ngi ko nekk di oo daat daat waaye du du ma dee mun a uy daf dee ubbi gémmiñ bi rek bët itam nekkul di gis bu baax gis nga nekkul di ubbeeku bu baax si laa daw dama ne ko léegi nañ tray ñu ut town trip ñu yóbbu ko si hospital bi léegi ñoom noonu lañ dee ñoom noonu lañ noonu lañ noonu la taxi bi taayee ñu dugal ko si biir si biir taxi bi daw da dem ak moom waaye leetaroon ma dégg ne ñu ne si biir pax la daanu soo te daanu si biir pax nit ñi dañ war a bàyyi di di di paas wrong informations Bala ñoo joye information dañ wara a investigate njëkka pour ah, dañ wara a investigate njëkka ah, ñu mëna xam lu leer den ñu soga joye information boobu noonu because li, su fekkee ne fii la wax ne fofu la daanu daanu daanuwut foofu because li well before li amna fi one week almost all there li amna fi two months depuis bu slab bi damé waye non lañ ko daan manager non la ko taxi ak driver den manager fi soo dañ war a bàyyi bu fu bu fekkee ne yëfi ndox la fii almost depuis man bu ma nekkee xale Mosque Road nii la yaaga mel daf dee loo amul dara lu moo def ak construction ah, ñuy construct wala ñu nekk di liggéey lii ah. soo dañ war a bàyyi information yi nga xam ne ñu ngi koo joxe te nekkul ah, te koregul public bi dañ war a try because kenn ku nekk si ñun dañ dañ la dañ laa laajte yowmal qiyaama lu le loo wax soo dañ dañ dañ war a bàyyi dañ war a bàyyi loolu allah foog naa ne njëm dinañ pare loolu incha allah. Mm-hmm.